ñu fas yéene àndaat ak yéen kon ci liggéey bi dina dikkee itam kenn ci jëwriñi liggéey bi di Serigne Bàcc Sall Serigne Bàcc nag euh, féetewoo ci wàllu kuréel gi nga xam ne moo lëkkale Fafatul Bichri waaye itam di wax ci turu dongo yi nga xam ne ñoo nekk ci kër Serigne Modou Serigne Bàcc gannaaw bu ñu la nuyoo si yàlla leen kàddu ngay jox bokki taalibe yi day bàyyi xel aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بركب شيخ بالا فال جينغ sëriñ Mor Talla ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal yaa ngi mbooleem ñi nga àndal ci liggéey bu rafet bii nga xam ne ñëw ngeen ànd koog ñun ci bis bii nga xam ne sëriñ Mouhamadou Dieng wala ñu naan ko tam dogal moom it tànn mu dëkkaale jig moom ci weer wii di weeru tam xarit njaboot gi àndandoo boole bis bi muy bisub sëriñ Balla Fall bi di ko ci ñaanalaaleel njaboot geeg taalibeeg xarit yeeg soppeeg ñëpp àndandoo di ko def ñu ciy jaajëfal nag Cheikh Mouhamadul Mourtada Dieng mi xalifa Serigne Balla Fall yi bu ko ñaanalee mu yàgg fi téer waaye di siyaare mboole njabootu Serigne Mouhamadou Dieng Serigne Mouhamadou Dieng Balla Fall sëriñ Serigne Basirou Serigne Salihu ak Serigne Moustapha mi seen jëwriñ sëñ xaadim mi jiite liggéey bi ak mboolem ay rakam waaye di siyaare mbokki taalibe yi nu seqal liggéey bi yëpp dong yi doon tërbiyewu sëriñ bi ba làq ngërëmam moom ñu ànd ak ñoom liggéey bi ak yeneen kuréel yi nga xam ne sampwaay na fi muy lu mel ne daara ma faatihul bisri ji nga xam ne ay ndaw ñoo xalaatoon ba ubbi ko ci jàppale ci Cheikh Moustapha mi jëwriñ ji ci liggéey bi a ah, liggéey boobu nag xam nañ ne bi màggal gi jubee ñoom ñëpp takku nañ laxasaayu man mi xam ne maa ji gënoon xeebu ma bokk ci ñi ko doon coordonné ñu liggéey ci liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla rafet gi foo ko takk weesu na ko donte biñ ko tàmbalee yàggut xam naa nag buñ ko mënoon a wax dañ naan tey jii gannaaw bi fi sëriñ bi jógee mooy suñu deuxième édition ci nekkuk njaboot gi ngir wéyal ndigal li sëriñ bi daan def ndax at mu njëkk ma nga xam ne ci la sëriñ bi wàccoonu liggéey booba moom dañ naan sëriñ bee ko defoon ndax fàggoon na ko waaye gannaaw bu fi jógee nag muy diggante daaw ak ren njaboot gi ñoo àndandoo ci seeni man-man ak taalibe yi ak xarit yi ak soppe yi taxawal ko ba ku fi ñëw den xam nga ne yokku na ci ni ko sëriñ bi bàyyi woon bi dem kon ak loolu wax dëgg yàlla mbégte rek lañ ci manam ak cant tey sant mbooleem bokk taalibe yi fu waay mën a nekk rek te dugal ci saw ñax wala nga amul yéene teew ci bis bi ñu ngi leen ci sant bu baax leen jeejëfal wax dëgg yàlla sëriñ Modou sak sëriñ Modou bismillah waaw jërëjëf euh, taxawal ni ma cadré na taxawal ni jërëjëf sëriñ kon sëñ Modou euh, ginnaaw yooyu it yaay jëriñu li euh, kuréel bi di ma fàttali Bichri si yenn anam ngeen ko sosee ginnaaw bi ngeen ko sosee nan lay doxee ànd ko sama sëñ waaw ansu billaahi min seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim barkab Cheikh Balla Faali barkab Cheikh Balla Faali ñoo ngi nuyu mboolu mi yëpp di commencé nuyoo bi ci sëñ Moutala mii xalifab sëñ Balla Faali di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak njabootu sëñ Balla Faali jën gépp di jël nuyoo sët yi teg ko ci loxob sëriñ Balla mi nga xam ne mooy jëwriñ sët di leen siyaare di leen ñaanal fan wu gudd ànd ak wér. mu mel ni euh, daara ma faati ol ginnaaw ba sëñ Moustapha Bassirou yàlla na fa yàgg loolu te wér bi mu amee ndigal ci kilifaam taxawal daara ma faati ol ngir bëgg taalibe yi nga xam ne ñoo jokk ci moom nosu mel ni kurus benn wàcce rek benn wàcc mu mel ni nag di tax ñu nos ko it mooy taalibe yi mën a xamante. mën a dimbalante man di jariñante waaye it ñuy bëgg it ndigal lu ñëw it jaar ci daara yi ma faatoo Bichri murid yëpp yëgandoo kenn ku ne def si cër nga ca war a def mu mel ni biñ ko taxawalee it ah ndongalu xeebu lii dañ teg seen kanam ma lott ci loolu nag waaye mu mel ni nag daara ji am nañ ci poste bu mag mag ci bis bii ndax boo gisee bis bi li muy rëy rëy ak bernde yi li muy bari bari li ci ëpp mën nañ daara ma faatoo Bichri ci la jóge ci la jóge ndax bu ñu ko mënee wax dañuy wax ne bu buñ doon calcul maanaam dugub bi nga xam ne rek dugub nañ ko Touba keroog di ko indi mu nekk ci 400 nangam mille ci daa ji la génne ñaar nag yi nga xam ne dañ ko def ci bis bi mel nañ ci daara ma faatu bisit ci la génne kon day mel loolu boo génnee kon ci bis bi day mel ni kon bis bi lépp daara jee ko def waaye mu mel nag ki nga xam ne mooy mu Moustapha Bassirou lim bañ taxawal bis bi li mu waxoon mooy man day pas-pas bi ma am sama xol sedd dañ dem ba bis ba li ci ëpp daara ji def ko kon day mel ni moom la mu bëggoon am na ko waaye ñun ñii mu àndaloon it yàlla dogal ñu te ñu seen kanam ñun lañ bëggoon am nañ ko muy bëgg ngir bis bi rek saa bu ñëwee ñu xam ne am na yokkute waaye ndax ndax dañ ne ku yokku dangaa ngaa wàññi ndax boo gisee yokkute gi daaw benn nag lañ rayoon ren ji rey nañ ñaar mu mel ni li ñu jën ci wàllu xéwal dañoo togg ba mu des ñu def ko ca magasin ba mbanay ceeb yi ma nga mel ne man liñ togg desal lu war mat ñaari mbana wala ñett yoo xam ne kenn laalu ko kon dañuy wax ne bis bi na waaye bis bi dañ ne bis borom lay nuru bis maam borom lay nuru ndax ku xam sëñ Mouhamadou Dieng Balla Fally ni mu mel ci yoonu Serigne Touba waaye ni mu mel ci sëñ Balla Fally bisam nii rek la mën a demee ca kaw ca kanam ndax dara mosu koo ñor lut taxal bis sëñ Balla Fally bi kon bis bi nañ bàyyi xel ne lii ñu def tey doon ñaan yàlla bu déwénee lii mooy aska ji <laughs> daayira bi ngeen tijji nga xam ne liggéey bu am solo lay liggéeyal Serigne Touba ci kër Serigne Modou Dieng Balla Fally ngeen ànd ko Serigne Moustapha Bassir yàlla na yàggal yàlla yàlla yàgg guddalu fanam tamay ko wér ku dégg liggéey bi mu neex mu bëggoon ci bokk ci yan anam la mën a jaar pour bokk ci liggéey bi. maanaam ku dégg liggéey mu neex ko mën na jaar ci anam yi ndax euh, dañuy wax ne bu jaaree ci nga xam ne mooy secrétaire général di ason Lo nga ne mooy secrétaire bi mooy coordonné di adjoint euh, coordonnateur kon dafa mel ni ku jaaree ci moom wala nga jaare ko ci euh, bàcc Sall mi nga xam ne moo doon coordonné liggéey bii nii bi ñu doon dajale ci jaayante yi boo ko jaaree euh, da nga ci mën a bokk jëmm ji xeebu jiit bu ko jaaree ci moom it da nga mën a bokk ci liggéey bi waaye liggéey bi daal dégluñ ko ngi leen sama numéro téléphone 77 la 449 63 98 képp ku ci bëgg bokk ba ñu coordonné ci numéro boobu incha allah dañu teg ci yoon te xam mm, daara ji daal dara dara tax ko ci liggéey Sëriñ Touba liggéey Sëriñ Touba nag mooy ki ñu koy jaar ci bunti mooy sëñ Moussa Bassirou mii di ko ñaanal fan wu gudd bu ànd ak wér ndax day euh, sëriñ boo xam ne fekkee sëriñ du taxaw na la jox ma dara jox ma ma jënd courant jox ma xam ma facture courant xamoo li mu dépassé doo laaj dara kon lu ma def rek kon loo def war nga koo yokk waaye nag lu ñu waaye def lu mu bari bari ah, bu ko naw waaye lu mu xeex lu mu tuut tuut it bu ko xeeb kon dañ siyaare mbooloo mi di ñu sant di ñaan mu fekk ay déwén déwén ci barke Cheikh Balla Fally jërë ngeen jëf. jërëjëf moom lañ bëgg a yëkkati mu jëm ci liggéey bu màgg bi nga xam ne ñi ngi ko bëgg teg ci loxoy sunu kilifa Serigne Moustapha Bassirou muy fédération kër sëriñ Balla Fally ci liggéey bu am solo bii nga xam ne Serigne Abdoul Khadir Gadiaga mooy jëwriñ ji mu yeggale liggéey bi Serigne bi ñu déglu kàddu yi mu ci toftal bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh Mahamadoul Moustapha ñoo ngi lay nuyu si turu fédération kër Cheikh Balla Fally ak mbooleem ñi nga xamante ni ñoo ŋànk fédération bi. man naa ne jëwriñ yi ñu bari ñu ngi fii too teew di la siyaar ci bis bi nga xamante ni sa wayjur wa Cheikh Mouhamadoul Moustapha moo ko doon defal Cheikh Balla Fall yi wayjuram ba ba yàlla sunu borom dogal mu fekki ko ñoom ñu leen ciy boole leen ko defal nga taxawee ko fii si Daaru Jëng fédération nag aman yéene yi lépp loo xamante ni si bis bi laaj na ko rek ñu def ko ndax fédération ñooy général yi kër Serigne Balla ñooy soldat kër Serigne Balla Fall yi ñoom dégluwuñ may ndigal jooy kër sëñ Balla Fall rek ak lu ndigal la doon rek ñu fas yéene koo jëfee boolewuñ ci kenn ñu ci kenn it ku ñëw fekk leen ci ku demit bàyyi leen ci ba waral na bis bi itam xaj na yéene jiñ ci aman romb na lii te it bëggee woon ko nu ëpp nii ndax dañoo bëggan ci suba teel ñu ñëw ànd ak njaboot gi liggéey bi liggéey liggéey bi ba mat nga ñaara ñu ñibbi waaye nag xaj na naaje nañ waaye teewtit suñuy yeneen i membre yoo xam ne yu am Pastef lañ ku mel ni ñoom Serigne Massamba Sall jiitu nañu fi te booba léegi ñu ngi ci liggéey bi ñuy ñëwaat nag di yeesalaat sunu njéba rek ak sunu jaayante ci Daaru Jëng xam ne leen fédération fédération Kër Sëriñ Balla Fall la yéen la fi nekkal amuñu yite ci lenn amuñu bëgg ci lenn lu may Kër Sëriñ Balla gi jag te kër gi sax jag na ba pare ndax koo xamante ni ku tedd moo ne woon defar taxoo ta Balla Fall defar naa ko kuy defari fi jàmbur sàkkantama sayëf kon sëñ Moustapha njaboot gaa ngi ni ñoo ngi yeesalaat sunu njébal ak sunu jaayante ci moo doon addee ji ak yi nga xamante ni murid yi doon nañ ko ci defaale lépp kon mi ngi nii sa loxo jeeg ñu ngi la koy jébal te yeesalaat bu baax rek suñu jébal jërëjëf. jërëjëf kàddu yooyu tukkee ci jëwriñ ji ñu maa si teewlu kon kàddu yi cant ak ngërëm yi bàyyi ko ci sëriñ bi jëm ci mboolem mbokki taalibe bi nga xam ne ñoo yor liggéey bii. <laughs> waaw ñu ngi sant bu baax. mbooloo mi sëriñ bi nee na mi ngi sant bu ah, baax matu ko de mi ngi sant bu baax tubaarkàlla ci jëf ji ndax naka jekk yéen ngi doon ko ànd ak suñuy kilifa ba tey jii ngeen wéy di ko ak nun loolu nak rëy na ci nun loolu wax dëgg yàlla te bu fekkoon ne jëf dana doy itam la ngeen jëfoon démb mën naa doy sëkk ndax naka jekk lu fi mas jag rek ci seen borom jaarale ndax suñu borom moom ala kulli xaal joxut kenn me amee lu muy def rek dafay jaar ci yen nak li jak ci kër gi li ci ëpp ci seen loxo la ko sama borom di jaarale te bis bi bokk na ci li ngeen ci def nak sedd na suñ xol bu baax ndax amna lu ko jiitu woon daanaka man nañ li fi nek lepp yeen ko fi def ñi ngi sant bu baax te ñaan sama borom nangu ko te gërëm ko kenn ku ne lo ci def sama borom fulal la ko bu baax te lepp ngeen wat ko ci l'islam ci mbaxu sëriñ bekk katanam xamna nak li na ci sun xol ci kaddu ciant ma ko genn waye yeen rek sant nañ sant nañ bu baax te ñi ngi koy sédel borom waaw ñaan ñu dajawaat fi déwén te yàlla doole ñu sutura kaaraange bàyyi fi ñëpp te wéral ñu barkeb Cheikh Mamadou Bassirou war na